pagai karo aru gaya nai karo aru gaya nai man la ko jox di sant yàlla rek di julli ci yonent bi tedd di santati yàlla bu baax a baax ndax bi mooy dixième euh, édition loolu rek sant yàlla bu baax la ndax sëñ Modou kóllëre dañoo boole muy nit ku dëggu di nit ku baax di sama càmm boo nee soxna na Fall Fall dëgg yàlla ko ñaanal yàlla yàlla ak kër gi def lii mu nekk nii mu sax ci te jëm kanam te yàlla la fal ko ca saa su ne maa ngi ci ginnaaw macha allah yal na yàlla lan ngay wax ndax ngor rek la ñu àndee ak fulla ak fayda ak liggéey ba xanaa ñu góorgóorlu rek am yar am teggin def ko kilifa tey liggéey ndax ndaw moom liggéey rek ko jig ah buñ ko defee rek dana baax ñu ngi leen di sant yéen di leen ñaan

donc loolu kontaan naa ci bu baax a baax. ñu gis soxna Nafi Sall soxna Nafi Sall chaque jour daf diggante bu yàgg rek diggante bu dëgër diggante boo xam ne dëgg moo falal moo tax toujours muy ànd ak man toujours ñuy def làmb pour que xale yi mën a compétir. lan ngay waajal la ñuy dellu si waat fii. après chaque mois dinañ am benn combat balaa mu ñu tëj. kontaan nuyu sant ñëpp. Ah,